jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax am kontante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne lépp loo xamante ni soxla ngeen ko ñu dem jëlali leen ko dégtal leen ko ba àdduna bi yëpp mun ko bokk ak ñun tey nag ñu ngi fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar Thiès fi kenn koo xamante ni kenn du ko présenté ci réew mi ñu gëj koo gis lool. Euh, day dem ñëw ba Thiès euh, ngir loqati ko dégtal ko mbokk internetu wasaare yëpp euh, Idrissa Ndiaye Idrissa Ndiaye mel na mi ngeen xam Idrissa Ndiaye sa tëllëg daawar bi tey moom la ñu seet si ngir waxtaan ak moom lu bari bari ci réew mi ak ak ak ci làmb ji ak ci équipe yeeg Idrissa Ndiaye mi nga xamante ne gëj nañ koo gis Idi maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu sama sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Axlaa di la nuyuwaat di nuyu waa Sénégal yëpp di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ñaan si réew mi jàmm. Idi gëj a gise bi parce que d'habitude Idi mi ñu xamoon dañ ko gisoon mu am ay rasta ñu jékki-jékki toog ba benn moment gisatuñu la ñu gisaat beneen Idi gisatuñu rasta yi mais Idi mu ngi mu ngi leer macha allah mu mel ni eh, xaalis bi dugg na fan nga nekkoon. <laughs> macha allah sant yàlla rek euh, maa ngi woon fii si réew mi nag des fois damay voyager du ma nekk Sénégal damay génn Sénégal. Mm. tout juste rek maa ngi doog a jógee voyage nii doog a ñëw samedi laay doog a ñëw. Euh, rasta yi moom ndigal la ah ndigal la soo xoolee maam Njañ Fall moo may def loo rasta sama maam la moo may def loo ay rasta su ma ko kii rek dama ko war a def moom moom ma koy def loo waaw mm-hmm. ah, mais xaas gi nag duggagul xaas gi moom mu ci gars yi ñun dañuy sabablu rek yaa ma gën a xam. Mm-hmm. Mm-hmm. maam Njañ Fall mooy kan. maam suñ duggee ba si biir émission bi dinaa la kuy maam Njañ Fall xam nga dañuy doog a door. dinaa maam Njañ Fall mooy kan. dinaa la wax ci kàttanu yàlla bu neexee yàlla ak yonante bi. Mm-hmm. Euh, gëj a bi nga lëlu woon lëlu bi lan la ñu jékki-jékki rek gisaat idi beneen mu mel ni dafa am beneen idi bu bees bu génn. waaw xam nga des fois dañ la naan euh, reculer pour mieux sauter da ciy baax ndax li ñu waroon def si wàllu euh, médiat média médiatiser def nañ ko li ñu waroon def si wàllu télévision def nañ ko génn nañ ci télé tout récemment rek def na émission ak deux ak ngeen baal ma si kàddu gi ni ma émission matul matul deux mois. yaa ngi dégg émission bu def doole mais man maa dépassé léegi di def chaque jour ay émission parce que nit ki da ngay xool luy dem nga ànd ak ñoom def ñoom émission. waaw parce que àdduna bi siti bëri lépp bëri na mais tamit ñun ay kilifa lañ ay porteur de voix lañu. war nañ xam fu ñu mën a waxee war nañ xam fu ñu a mën a génnee pour leeral askan bi ñu dégg ñu. parce que dafa jot pour askan bi di ñu dégg waaw loolu yàlla def na ko mais bi du ñu ngi toog ñu ngi liggéey ñu ngi sant yàlla parce que ñi ñu war la ñu fës des fois ñu gis lu ñu neexul nag ci émission yi ñu génn ci tere wax wane suñ bopp wane liñ mënee. Mm-hmm. Mm-hmm. mais di lii d'habitude léegi dañuy gis ñi nga xamante ne dañu féetewoo ci wàllub ñaan dafa bari loolu ci réew mi ko gis léegi mu ngi ñaan koo gis mu ngi teg ñaari kurusam benn sijaadaam toog di ñaan loolu ci réew mi lan la. li ma waxoon biir sama émission célébrité rek laa wax. 2013 mm-hmm. bi àll bi lëndamee kurus Idrissa Ndiaye nga loon dégg. ban fajkat moo fi nekkoon 2013 ñu koy coow ku lul Idrissa Ndiaye waaye loolu dañuy sant yàlla innovation la maanaam lu réusit la man maay premier sëriñ bu gën a ndaw bu def Reug Reug sëriñ bu gën a ndaw si néew si say atam def Reug Reug man la yaa ngi dégg baax a waaye loolu sant yàlla la ndax daa si am loolu rek soo si tollee daa koy def rek après mu jeex comprendre nga dingatuma xam-xamu kenn borom bisimilah rahmaani rahim sax yàlla da koy may muy faj muy gis ndam. xam-xam bi bëri na xam-xam bi géej la ku mu neex tànk waaye ñun dex lañ ci ak géej lañ boole doon ab île ak ak monument biir ndakaaru doon monument sax du ma ne ndakaaru monument si biir Sénégal waaw ñun bañ ñoo gis moom wala ñàkk ñoo seet si moom hmm, lu lu lu lu lu doy waar la waaw loolu moom lu doy waar la. ci lan ngay ñaan ci lan ak lan. waaw damay yëngu si wàllu lasraar damay yëngu si wàllu zulmaan yi damay liggéey si xam-xam bu ñuul damay liggéey si xam-xamu alxuraan. Mm-hmm. damay bind ay xaatim damay bind ay xaatim mm-hmm. ah, parce que euh, loolu yàlla def na ko ci kër gi. Mm-hmm. Euh, dinañ ñëwaat mais yii ñu gis lan la. lii waa lii de si wàllu tuur la. ay wàllu tuur la ay béjjén yu ñu sox say. àndandoo di ci taxaw ngay wax ñoom li nga bëgg a wax ak ñoom di communiquer ñoom li nga war a communiquer deret la ñuy dundee ak soow. deret ak soow. Mhm. ak ak loolu lu ñuul loolu. Mm-hmm. Mhm. mais mais mais fi mu toll nii boo waxee ñoom dinañ la dégg dinañ la tontu. waaw loolu moom yàlla may na ma ko ndax damaa fees dell ah su ma bëggee fees damay su ma bëggee wàññeeku damay wàññeeku loolu may na ñoom. ñu tontu la nga wax ko askan wi lay seetaan est-ce que dinañ ko gëm est-ce que duñ ne Idy daa fente ay waxam rek di ko wax. man dégg ma Sénégal amatuma lu ma fi prouvé xam lu dama la amatuma lu ma fi prouver lii presse bug la. presse bug la ñaari combat moo ci amul xoolal combien de combat si benn at. si benn jour nga génne lépp te lii ba tey moo nekk réalité booboo ci amul Modou Lo Eumeu Sène bi si Modou Lo Eumeu Sène bii nii nii nii nii nii nii waaw ah, liñ ci mën a wax bëri na si guddi gi bi ma defee déclaration lii nii nii nii kot su Modou Lo si boppam ñëw sama kër si guddi gi laa la bi ma defee déclaration bii du ma fenal kii que ce ñaari tali sama kër du ma wax tamit lu ma leerul. kon lan laa amati lu may prouver biir Sénégal amatuma lu may prouver biir Sénégal bu fekkee coupe yi coupe jël naa ko feneen leneen ak leneen def naa ko fànk naa fi ay dégâts yu fi waroon am si biir réew mi yu bëree bëri kon lu ma fi wax amul amul amul loo xam ne war nañ ko waxati toog fi ne Lac Rose dina ko bëri du am ndam. ku sañ a wax si biir Ndakaaru wala si biir Sénégal. loolu dinañ ci ñëw. dinañ ci làmb ji léegi. dinañ ñëw ci làmb ji parce que xamul kese may laal tey damaa bëgg a askan bi ñu dégg ma. Mhm. émission su ngeen seetaan sama émission yi mujj yi fan yi même pas un mois. Mhm. yëpp dama na yéen lu tax ma may leen lisaay xamul kese yi dugg si man. Mhm. Ah, ku xamul kese yi dugg si man waaw ah, ku ma xam dëgg di ma maytu. xam nañ ni làmb moom fi mu toll nii euh, ñaankat yi dañ ci am njariñ parce que ñoom ñooy numéro un mbër bu laalee avance ci li muy njëkk dem balaa mu koy laal sax ci ñaankat bi la mu xoolal ko ne ko baax na jëlal wala baaxul bul jël. bu amaatee combat bu jotee xaalis ci yéen lay jëm si. làmb ñaata mbër nga ci mës a ñaanal. yàlla xam na ni su ngeen bëggee ma woo ko léegi ku koo xam ni day bëggee Modou Lo la. billaahi wallaahi wa taalaahi mun naa ko woo léegi ngeen laaj ko Modou Lo Eumeu sarax yu ma laaj yëpp lépp lépp lépp lépp moo ko def man résumé ko combat bi ne ko Modou Lo day dóor mu ma ne ko gis nga ni doomu daangu ma ne ko gis nga ni doomu daangu mu daanu noonu la Modou Lo di def Eumeu Sène te bu Modou Lo di def Eumeu Sène a ñaaw commerçant daa mel ni soq la dóor mu daanu de dégg nga commerçant bu mag la xam nga fan la ngi El Malick des fois duñu bëgg di wax mm. lépp lu war ci combat contre Modou Lo Eumeu Sène moom moo ma ko jox ma def ko te maa ngi stade def li ma war a def lépp wax ko combat bi ni muy demee yépp xam nga loolu tey laa koy doog a toog wax. kay. Eumeu Sène dóor Modou hmm. euh, te dama dama ko ni combat bi du weesu ñaari ñaari dix minutes ak ñaar maanaam douze minutes du ko weesu dama ko wax ne ko du weesu douze minutes mënu ko génn. te fu loo Modou Lo dóor mooy maanaam waa ji wàcc na si suuf mu jox ma ma jënd ay bëy plus de cinq bëy jox ma yi may jox ak yëpp li ma war a jox yëpp <laughs> mais mais biñ may woo midi lañ ma woo vendredi la ma woo ne ma loo gis si combat ma ko ko li ma gis si combat yëpp yëpp résumé ko mu ne ma luy pexe ma ne ko sàngam ak sàngam suñ ko defee mu daan mu ne ma est ne ko suñ ko defee day daan te day dóor waa ji mu daanu mais Idi ñu ñëwaat ci komba euh, sa diggante ak lagros parce que euh, dafay bëree Garga première édition euh, am loo xam ne dund nga ko ak ñoom bëggoon naa nga leeralal ma loolu nu mu demee tuuti ba keroog bi ñëwee làmb ja ak li nga ne Lac Rose dina toog juróomi at yoo xam ne du daan mbër. waa xam nga lagros dañoo bokk dëkk. mu rafetoon lool. muy bëre contre mu Anta ma ne ko carte téléphone woo ko ne ko génneel ñaari pitax yu weex. ni ko doxal ba si sele yoon wax ko li ma koy wax. ñuy déggoo téléphone laa lax de wax ko combat bi yàlla xam naa ak yeneen ak yeneen. ma jàppale ko si yooyu. waa sunu làmb ñoo seet si ma ñu toog ma teg affaire yi yëkkati yëkkati yëkkati wax làmb yi ne leen Lac du daan garga su nekkoon tey tey tey du ko daan mais su jógee daan combat bi. bi ma ko waxee ñu xëy def ko soleil sunu làmb coow li bëri lool biir ndakaaru man sax stade boobu amuma si dama dem di ko jëndi fekk di dem tribunal am lu ma doon li jëndi ñu ne waa ji génn si télé bi de eh, mooy loolu. si ngoon gi ñu yaan ma bataaxal ne ma lagros Rose waa ko ñu Lac yaa ngi wax sama nijaay day ñaan taal otom ñëw sama kër ne ma problème bi may dégg ndakaaru lan la ma expliqué ko mu taal otom dem kër ñoom Lac Rose soo xoolee sama kër mu ngi mel ni ngeen nekk fi ngeen jóge si angle ba. waaw si ginnaaw angle bi noonu mooy kër ñoom Lac Rose. ñu dem fa waxtaan bi ñuy waxtaan ma woo tons ne ko tons ba muy ma ne ko Lac Rose nee ko ñun amuñu jot pour xeex ko. ndax lébu la ñuy lébu. dinaa ko may 117 dinaa ko may benn nag mu préparé combat am xam nga ki la wax loolu bëgg na jàmm. man maa wax loolu sama nijaay ak may seetaan mu may dégg. bi sama nijaay demee wax wax wax sama nijaay tamit ne ko dina ko jàppale. ne ko du am du am defet sama yaay ñëw si kër gi wax ak man li ma xamoon ma ah. ma xëy lendemain dem jaale ji benn dëj ñëw fekk la ñu saccagé sama kër lépp man bi ñuy saccagé fekk ñu ma fa dama demoon dëj mu bëri nag dañoo foog nii laal nañ ma dara xuriwu ma ci dama jóge dëj ba tugg sama biir nekk tëju di waaja a recevoir samay client si la problème bi am ñoom gisuñu ma gisaanuñu ma yaa ngi dégg. Mm-hmm. média wu gi yëpp ñëw ma ne leen ma téye kaamil sama loxo jàpp ba set. daraay sobe topp ma ne leen dina bëre juróomi at du am ndam te fu leer laa ko teg bi muy bëreeg musaandooy Ndoye nga dékk micro Moussa Ndoye Moussa Ndoye mbër bi muy bëreeg Lac jàppale naa Moussa musaandooy Moussa Ndoye ba combat gi yëpp lépp ñu ngi déggante dama nga laaj Moussa xam nga tey da wax a jot. moo tax ma wax la lan moo waral loolu dafa am euh, luñ la def mu metti la loolu ba tax nga tëkk ko wala lan la. du question tëkku gis nga sëriñ suñ la dóoree ba àdduna ñëpp xam dañ laa dóor mm. ki la dóor da nga koy wan ni man man dafa am lu ma àndal loolu mooy wax ji ki la ni juróomi at ngay fayee ko ay millions boobu ba tey munoo daan mbër loolu mais loolu pare naa ci yéen ma ci laaj moo tax ma ma ma waxaat ci ak li ma génn kii bi mais loolu pare naa ci parce que samay 5 ans man na 5 yi moom dama ko gérer woon téye ko. man na ah man na. fi mu toll nii yaramam lépp. ah du la ma àndal man Idrissa Ndiaye baal naa ko mais la ma àndal te xam na cosaanu loolu ndax lébu la la ma àndal du baale muy ba biir Cap Manuel la ma àndal du baale mun nga ma def nag man Ndiaye man man man mi toog en personne ma lay baal mais la ma àndal su xasee ba jug du baale du mooy tamit la ma àndal du la mooy fenn sa lépp lay rajaxee te la ma àndal mag du ko dëkku gone du ko dëkku ab cosaanu koy dëkku ma ma wax la ko. sa diggante ak garga Mbossé lan la. waa garga gi nga bi loolu amee. fekk période boobu sama nijaay mu ngi ñaanal Zos. Zos contre Tidiane Faye sama nijaay ko ñaanal bi muy daan Tidiane Faye yooyu yëpp. ñu ciy jàpp sama nijaay dama doxeel nii doxeel nii ma doxee nii. bi mu amee ñu jël combat bi. ñu yóbbu garga stade maa ngi toog sama kër di liggéey. boobu maa ngi escape urbam parce que dama mujjee tuxu ñaari tal ndax coow li dëkk escape urbam ñu yóbbee garga ñu toj bopp garga combat li ma la si ay mbàkke mbàkke yu si jàpp samay xaritu mbàkke mbàkke yu si jàpp da ma naan déedéet combat bi ñu tojee bopp garga ñu yóbbu garga ñu tëggaat combat ma def confrontation cinq jours avant combat ma taxaw bisu laaj ma si loolu ma ne ko day daanu mindeef munu ci dara ci kàttanu yàlla day daanu day laal suuf man maa ko wax <laughs> te la ma waxoon moo am. day daanu boobu garga moo la fayoon pour nga liggéeyal ko wala. est xam ne garga bi muy tekk ngémbam xam nga yow fekkante nañ fa. Mm-hmm. bi ñuy tekk ngémbam maa ngi dugg si biir kër garga di toj di tekk ngémbam garga maanaam def na ay saraxam mais la ma ca def moom garga xëy na def ko ca si sama côté. parce que garga ak lagrose la woon mais lagrose ak Idrissa Ndiaye la woon tamit mais loolu jeex na jéggal nañ ko baal nañ ko. mais nag su bëggee melaat na meloon na ñëw ñu toog waxtaan ñu ne ko na jaar soxlawu ñu dërëmam nag ndax ñu ngi tedd ñu ngi sant yàlla. na ñëw mu jaar fi mu war a jaar ñu ne ko demal sàngam ak sàngam géeju su mbéjum demal Cap Manuel sàngam ak sàngam nga def ko fa mu def ko fa xool. Lac Rose bi nga ci kàttanu yàlla bu neexee yàlla ngeen mais man jéggal naa ko loolu pare naa ci xëy na émission moo tax ñu jëm man yooyu pare naa ci maa ngi ci yeneen léegi ah man maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci yeneen. mais Idi li nga mënoon ba léegi Idi mi wexoon tàng lu mu wax ci làmm nga koy gis est-ce que mën na ko parce que am na combat yu taxaw yoo xamante ne fi mu toll nii euh, tuq sa bël saaj ba réer la Bal Balla Gaye Bombardier euh, Modou Lo euh, nu mu tuddati Ama Balde <laughs> Eumeu Sène Eumeu Sène Tapha Tine Boy Niang Eumeu Sène de Guiers 2 yooyu loolu léegi damay njëkkee ci combat bi nga xam ne askanu Sénégal ñëpp ko soxla di ko xaar mu nekk dër bi diggante Pikine ak parcelle Modou Lo Ama Baldé. xam nga Ama sama waay la. Ama ñaanal naa ko. nekku ci. bàyyil mu wax. xam nga xam nga Ama ñaanal naa ko. mu doon sama waay mu doon sama xarit. Modou Lo tamit mu doon waay ju baax ma xam ay Demba Xarañ Lo ay Abdou. Mm. ñooñu ñooñu ñoom ñoom ñoom gars yi ñoom Ibou Laye xam naa leen mais Demba laa ci gën a miinanteel yaa ngi dégg. combat boobu du ma ci mën a xam la du ma ci mën ama su dee benn fan sotti naa ko gaalaaj mu sangoo ko. ama am nañ seytaane moo ñu jaxase rek. contre guy gi bi ko guy gi daane dañoo ne man maa ko jaay man ku ma xam-xam ne du jaay xaw ma loolu sax xaw ma loolu. boobu moom lañ ci jaar rek. que le meilleur gagne na ama entraîné Modou Lo entraîné que le meilleur gagne si barke Seydina Mohamed. am na gis. xanaa da nga ko wax. waaw mais am na lu ma ci gis parce que ki yor Quran bi jàmbaar la ama jàmbaar la loolu daal laa am lu ci mën a wax. waaw ah, mais Balla Gaye moom day daan bombardier <laughs> loolu moom ma wax la ko loolu moom mun naa kaa wax Balla Gaye day daan bombardier ci kàttanu yàlla. dina ko daan daal. ah dina ko daan yomb na trop. dina ko daan ba mu jaaxaan du doon kadaapi moom dina ko daan ba mu jaaxaan. loolu moom moo wax la ko mais la reste moom xam nga léegi maa ngi ci làmb ji di ñaanal ay mbër yooyu am na yoo xam ne mënatuma ci wax. Balla sama mbër la. man moom ma gis ko ma ñàkk ko gis am ak moom ay rapprochement sama nijaay la amal rapprochement. muy Xaadim Bay mais man aw ma mais man sama mbër la. yàlla day def loolu waaw loolu day def loolu yàlla moom day def loolu Balla suy bëree man mooy loolu daay fii su wex werante amoon ma toog di liggéey ay client client yi toog fi di may liggéey nii suñu waxee waxu Balla Gaye damay génn laaj xam nañ comprends nga mooy loolu ma Lac tamit sama dëkkandoo bu yàgg la xam na ma Papis sama waay la sama xarit la. waaw man maanaam maanaam maanaam Lac sama waay la dama koy ñaanal ndam waaw ama moom mënu ma ko ñaanal safaan wax dëgg yàlla ak yonent bi su dee benn fan defal na ma ko teraanga yàpp na ma si otoom yàlla dem si yàlla si moo taxoon ma xam ko Zil Balde Junior ah, moo taxoon ma xam ko yàlla def ak los jaaytaar couture ñoo taxoon ma xam ama yàlla def ma koy ñaanal yàlla def après ay affaire seytaane dugg ci. loolu la demee mais du leen daal parce que man moom xaw ma ba si ay nawetaan ak football xaw ma di yor équipe bi yor équipe bi déedéet amaa niñ meloon maanaam am na ñu neexul woon daal bëreeg man kaf man yooyu yëpp mais am na ñu neexul woon mooy loolu mais mos nañ toog ma ne ko man ak yow bu roi des arènes de waaw nañ toog ma wax ko ko. te mu ngi ci filaan roi des arènes yow kay kat Idi wax ji boobu wax ji yegg. ñu baal ba mais ñi ñi kii ñi amul xel ñoo ko moom mais. idi dama lay xamal ñaar. Mhm. waxuma si waxu ndakaaru ku bëgg a falu soo ñëwee si man falu ak lu mu munti doon. ndakaaru ku bëgg a ak lu mu munti doon la wax. ndakaaru Sénégal laa xamal Sénégal ku bëgg a falu ak lu mu munti doon soo ñëwee si man falu. loolu am lu may wax leneen du ma ko ci waxaat. kon Ama bu la seet si woon léegi ngeen toog waxtaanaat trouver terrain d'entente nga jox ko couronne roi des arènes. yàlla moo xam luy xew suba. suñ borom kese xam luy xew suba mais nag Sénégal moom samay maama fa nekk. biir Dakar samay maam Cap Vert jàpp île bi ñeenti île yëpp samay maama fa nekk ku si bëgg a falu daal soo ñëwee di nga falu ci kàttanu yàlla. bu bu du Modou jékki-jékki doon dégg lii nga wax rek mu daw na bërëxët ñëw nooy def ak moom. dañ koy liggéeyal ñun amuñu lenn benn benn chance ku ñëw ñu liggéeyal parce que looloo ñu fi tax a toog waaw jiw da nga ànd ak moom ba ci yàgg ay yàq-yàq ko. keneen ñëw ne dama laa sollicité da ngay mun pour pour jàppale ko rek loolu rek la muy moom muy kee ku si ñëw ñu jàpp si te yàlla tax mais nag ñun doyloo nañ lu ñam ndax ñu ngi sant yàlla su dee benn fukki dërëm bi ñuy yeewoo sax di ko yeewoo sax ñu ngi sant yàlla alhamdulilah macha allah. tafaatin booy Boy Niang. booy Tine tamit que le rek. nag ah, wax dëgg man ñëwuma fi pour que le waaw oh, Idi te Idi xanaa li doon wax ci yow daa jóge ci yow. non non du question lu doon wax daa jóge ci yow. xam nga soo nekkee kilifa am benn place bi nga nekk ci réew mi léegi am na erreur yi bëri da nga ciy bañ a dugg parce que on a fait des erreurs yoo xam ne suñu ginnaaw moo tax yenn nit ñi sax di ñu xoolee yenn bëti te or que noonu maanaam làmb ji dafa bëri léegi lu ci laxasu ñun dañ doon wax ci làmb ne la di way daan. soo ñëwee suñu kër jour lam day mel ni mbër bi ñun ñoo koy ñaanal kiñ na mooy daan di nga rey nag dinga nga rey yi nga war a rey yëpp di def yi ngay def pour bañ maanaam ñu fen la wala ñu wax loola loo xam ne amul. Idrissa Ndiaye léegi dafa toll étape boo xam ne tollatul fu mu waxee erreur li des ci àddunaam parce que Idrissa Ndiaye il est bien entouré maintenant bu njëkk xelu xale moom loon jàpp fëggu xale. mais làmb yi moom làmb jinne la làmb yi ku sëriñ mbër bu ci amul jinne demal nga toogi ci. non non yi nekkul ay falaa falaa nee koy daan de làmb yi làmb jinne la ak xam-xam bu ñuul ak boroom kurus nag ku mun kurus dëgg ak ñaanu baatim loola fi am mais Tapha am na combat bu baax a baax. am na combat am na combat. kon kuy doomu Bawol bu yeboo am na combat na de mais nag xamal naa la ñaar nga koy dégg de làmb jooju dina am deret de. xeex round round round d'observation bi dina xaw a bëri tuuti loolu daal laala la ciy may. <laughs> xam na li xew ci làmb ja koy nëbb bañ koo wax. en tout cas ñoom ñaar ñëpp ay jàmbaar lañ mais booy ñaa ngemb gi ñu ko ngemb ngemb roi des la. moom mooy seetaan ma déggul dina xam bu ko ngemb ngemb roi des ji actuellement ni mel ci wàllu. mystique ak yu mel noonu kan nga jàpp ni ci mbër yi moo ci ëpp mystique. waaw ki fi ëpp mystique moom guddiñ toll ñaar ñett la. dama nga seeti Quench. <laughs> Quench dama lay limal ba ñeent sax Quench. Balla Gaye doomu dàngu dama nga seeti ji nga xam bu baax li ma lay xam nga ñu naan Lac dafa am mystique Papis dafa am mystique dafa am mystique des na. kay. kon si yorum ngemb gone. Quench xool ko bu baax. xool ko bu baax ah am na mbër yu bëri dañuy bëri si arène bi dañuy folklore yenn gàllaaj yi ñu tax yëpp affaire folklore la du ay gàllaaj. seede yàlla du ay gàllaaj affaire folklore ñoo ci bëri <laughs> barki Sëriñ Fallou man damay gis mbër roogu takk ba fees dell. man sama benn sengoor rek su ma la ko joxee sa ngemb ku ci jàpp am problème sama benn sengoor rek laa la sengoor nga takk ko. sàkkamtuma ak yére bi may defar mbër di ko sol mu am béjjani ñu sox ko bind ci ay xaatim déggoo ma de dinaa defaat sama retour ci làmb ji ci kàttanu yàlla ànd ak mbër. ngay àndal nag loolu laa bëgg li si kanam rawlu bët nañ xool rek sama. idi ci làmb nan war a mel. lu xonq li ah, <laughs> loolu boobu ba may ànd ak Ama la <laughs> ba may ànd ak Ama Balde la ko période boobu ma koy sol di ànd ak Zil mobile mobile euh, maa ngi mobile sax nu mu tuddati Mopol. tam nekk France. Mopol ñaata combat laa ko ñaanal dégg ko micro nga laaj ko Mopol balaa ma doon génn laa war làmb ji nii lay demee mooy loolu tamit. <laughs> ci làmb lan ngay sol yére olof blouson. sort tuddee nañ ma fi ay drapeau tuddee nañ ma fi ñaar Fallou Ndiaye. promoteur tuddee nañ ma fi ñaar yoon drapeau te bëgg naa sax mu dolliwaat ko ah bëgg naa mu dolliwaat drapeau bi ci kàttanu yàlla bu neexee yàlla ak bi. mais incha allah su may dugg ci di waajal mbër moom di ngeen xam ne Idrissa Ndiaye waajaan na bu baax a baax te du yàgg dara ci kàttanu yàlla. soobee yàlla ak yonent bi. feebar bi xanaa amoo leen ci xam-xam wala mënoo leen ci dara. Ah, xanaa dégg naa li ngeen mën a mën a ñaan ñaan ñaan. coronavirus moom moo leen ëpp doole moom rek ngeen waate xanaa xanaa di jël suñuy masque ak suñuy gel rek. comme que loolu la tubaab bi digle ak médecin yi digle. non Idy bul ma wax loolu nag yow tamit. man de du jàpp samay mbokk. du jàpp sama mbokk du jàpp ñi may àndal loolu moom yàlla may na ma ko te nit du dugg sama kër ba am ko fi ba wàllu ko fi kenn waaw. waaw nga war a mën a ñàkk Sénégal ngay ñàkk sa kër kese loolu mooy la. waa ñàkk Sénégal tamit ñu ngi ñàkk Sénégal ñu ngi ñaan parce que ñu ngi ñaan si réew mi jàmm loolu rek ñàkk la ah di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal euh, président Macky Sall jàmm. Mm-hmm. loolu daal ñu ngi koy kii. ku nekk bitim réew. bëgg nga nga nga <laughs> bëgg ku ne bitim réew bëgg gis nga ko ree ree nga xam nga lim la wan sama waa ji du wekki day daaj ku ne bitim réew tey bëggoon Idrissa Ndiaye ñaanal ko wala mu seetal ko seet bi nu muy demee. waaw pour ñu nekk bitim réew moom 30 euros la mooy seet bi ñu nekk bitim réew ku si bëgg a jokkoo ak Idrissa Ndiaye soo jëlee numéro mi di nga jokkoo ak moom mooy 77 378 07 00 77 378 07 00 nga jokkoo seeg Idrissa Ndiaye. su ma la seetalee su ma la gisul du ma la mën a ñaanal loolu moom yàlla xam na ko. boo ko gisul doo ay million nga ñëw ne ma damaa bëgg dama la naan dama lay xoolal ba pare su ma xoolee xam yan buntu laay jaar man la ñaanal xam nga dafa bëri dem naa si sëriñ sàngam la ma waxoon gisuma ko dem naa si sëriñ kee la ma waxoon gisuma ko mais ku dem soo ñëwee si teel man la fii lay mujjee ñeneen ñi mën nañ ñaan yàlla may na leen mais rawaan des fois nit ki maanaam sëriñ du xool rawaanu nit ki ak biddéewu nit ki da xam biddéewu nit ki lan la bëgg ñii ñi am na ñoo xam seen biddéew safara la nekk am ñoo xam seen biddéew si ndox la nekk am ñoo xam seen biddéew si ngelaw la nekk am ñoo xam seen biddéew maanaam ay mun a juum la day balancé wu rek du toog benn place lu ñu ngelaw lay doon mais nit ki da ngay xam li nekk ci moom xab rab a koy yàqal xab ba xam jinnee koy yàqal loolu yëpp c'est important waaw soo ko xamee nag mën nga ko faj mais soo ko xamul doo ko mus a faj <laughs> Euh, ñu ñëwaat ci beneen combat euh, muy diggante guy gi ak rëg-rëg ñaari mbër lañ yoo xamante ne ku ci nekk am na ginnaaw ñoom ñaar kan moo ci ëpp ginnaaw ak combat boobu noo ko gisee. wax dëgg yàlla yoneen bi gisaguma nii may xool nii ma toogee nii loolu daal laa ah, gisaguma jëlam wax dëgg yàlla ak yoneen bi gisaguma jëlam daal ki koy daan daal gisaguma ko waaw. ki koy daan gisaguma ko de. rëgg gi kan waxuma ci ñu mag ñi de mais ñi mu tolloon nii gisaguma ko ci de. daa tolloo guy gi pour yow. non gisaguma ko koy daan si si si dimension boobu. Mhm. te làmb bu yomb lay doon nag du metti du du du sax du duyre lu yàgg. làmb taxañ rek mu jeex. loolu. déggul ma làmb taxañ la bu jeex maanaam laxa làmb boo xam dañ koy taxañ rek bale mu dem. kan mooy taxañ. taxañ rek mu jeex. kan mooy ma ni ma toogee nii di wax ak yow nii gisuma suñ bëri woon tay tay tey gisuma jël rek rek xam nga dëgg neex yàlla. kon leer na xaayaan ku dégg séeréer. maanaam suñ toogoon léegi nii ñoom ñaar ñuy bëri nii ma toog nii sama kuréel gi di leen seen gisaguma jël rek rek xam nga say waay mënuñu di ñaanal nit ki. Mm-hmm. ngay taxaw di wax si nit ki safaan. bu yàggee sax ñu ne yow da ngaa sikk. Mm-hmm. te am na samay waay yu koy ñaanal. kon mooy loolu tamit mun ma cee wax wax yu bon mun ma si wax ne mais balaa ñuy ñëw ci ci ci tàggatoo bi lan nga ma mën a may loo xamante ni sénégalais buñ ko xoolee xam ne Idy mii fa mu nekkoon ba tey ma nga fa. ah am na yooyu yooyu may àdduna bi ñoo xamante ni ku ko xool xam ne Idy def na de. en direct sa Ndiaye seetal ak daawar bi jël na kurus de. jël na kurus ba de. demal wëral juróom-ñaar yoon wëral ma wëral joowal si kaw wàcc suuf demal ci kaw wàcc suuf na gën a bar na gën a bar wëral ma wëral wëral wëral wëral wëral wëral wëral demal ci côté journaliste bi côté bi mu nekkee ki yor micro bi demal si côté am demal demal ñëwal ci digg bi nga taxaw taxawal demal ci kaw wàcc suuf demal ci kaw ma nga jow de demal ci kaw wàcc suuf wàccal wàccal gën a wàcc gën wàcc lii ay kiraamatul ay li dara sama loxo yëngatu sama def kurus baa ngi yëngatu xam nga loolu mooy loolu am na yeneen yoo xam moom tey su aajoon ñu lekk kaas bi sax dañuy lekk bi mais. doo dañ ma ko tere sama doom. sama doom moo ne bëggatul ma koy def looloo tax xam rek soo demee ba sa doom xàmmee ba ba wax la yenn nii moom da nga koy danga koy bàyyi mais fekkoon terewuma ko moom dama koy def léegi léegi léegi léegi amul sol yi amul dara toog def ko waaw. mais sa doom mu tere la xëy na xam nga xale la. Hmm. te elle a sept ans. su toogee seetaan loolu ne buggatul ma def ko xëy na am na lu tax mu bëggatul ma def ko te sama lépp la mooy sama lépp. Hmm. kon li muy nekk nekk xale xam na liggéey yàlla li mu may baayam ba tax na am na ci lu bari loo xam ne doog koy sàmmal. parce que bi mu juddoo la baayam gën a am doole si wàllu ñaan loolu baayam xam na ko ñaar doom la am bu góor ak bu jigéen mais ku jigéen ki mooy taaw waaw kon am na yoo xam ne mooy mooy loolu am na su ko demee ba wax wax ak yow ne la buggatul nga def ko te si xale xëy na am na am na am na am na lu tax parce que moom bi muy judd rek juddaalewul noonu kese. am na yoo xam du télé lañ koy waxee nag bi muy juddu judduwul noonu kese waaw. di ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax wasaare noo ko gisee. ah ñi ma tey suba de dugg naa di seetaan seen i seen i seen i seen i seen i vidéo ak seen i interview yi ngeen def mais zéro faute waaw ah, zéro faute daal macha allah daal kontaan naa gis naa tamit affaire yi ni ngeen koy profana euh, nu mu amee euh, professionnel mm-hmm. comprendre nga. waaw loolu gis nañ ko et puis tamit ñi nekk ci diaspora bi tëw am ay kayit ak euh, ay feebar sonal leen ay tëjoog umu suñ ñëwee fii suñ ñëwee ñu ñu loolu lépp ci kàttanu yàlla bu neexee yàlla ak yonent bi. ensuite di nuyuwaat sama waa kër gi ñëpp waaw ñi fi nekk ñëpp di nuyu ñëpp daal bàyyiwuma kenn ku lim jum maa ngi nuyu ñëpp ñëpp di nuyu sama soxnaak ak waa famille ak yëpp di nuyu sama yaay di nuyu sama pàppa waaw di nuyu sama sëñ sëñ Abdou Karim ne nag gën a yokk ñaan gi. di nuyu sama yaay yi nekk Gambie mère Soxna mère Aminata ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu mais waa Gambia maa ngi nuyu ak ak journaliste bu mag bi fa nekk Lama ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen wax accueil bi ma defal kontaan naa ci ñuy waaj delluwaat nag incha allah ci kàttanu yàlla du yàgg dara di leen ñaanal di leen wax ni dinañ defaat émission bu dàq bi ci kàttanu yàlla bu neexee yàlla ak yeneen di nuyu sama xarit ATM borom. Euh, New York. sama xarit bi ATM ah, Seck. di ko nuyu moom moom borom baax la mu ngi jàpp si combat bi ndax ñun sëriñ tamit guddiñ toll dañoo dañoo nekk si askan bi te foog am ñu ñu jàppale. Mm-hmm. mais nag nit ki su lay jàppale foog ngay wan preuve askan bi ñu koy gis. Mm-hmm. waxuñu ne benn site nekk sa ginnaaw rek di la jàppale rek te mooy loolu. waaw ñun dañuy faj si wàllu jinne ak wàllu rab ak lépp. Mm-hmm. impuissance sexuelle ak lépp dañ koy faj. waaw kay. mu ne ñu si football kese. man ku ma jëli woon Kër Massar mais vraiment. Euh, am na ci loo xamante ne wan na ko réew mi ba ba ba ñu ci baree bari ñu ngi koy ñu ngi koy seeti di ko gis muy sëriñ Mor barki démb rek mu may woo di ma wan benn oto bu rafet boo xamante ni ci ci ci ci wàllu ñaan lañ ko ko maye muy wane ni Sénégal bari na ñuy ñaan waaye ku def rek nit ñi gis ñëpp dinañ la woy si. ma wan la ma wan la benn exemple rek balaa balaa émission bi jeex ma wan la. lenn nga gis ko. biir Gàmbi la yaa ngi gis yaa ngis gisal sa bopp yëpp Gàmbi la yaa ngis gis si guddi gi la léegi moo naat la beneen boo xam ni maanaam li ñu leex si wàllu jinne ak wàllu rab dañ koy faj ngi si sa bopp nii li newoon si wàllu jinn ak wàllu rab. yaa ngis gis si wàllu jinn ak dañ koy faj yëpp yaa ngi dañ koy faj maanaam yëpp mu ngi si kër gi dañ koy faj yaa ngi kon dafa doon loo xam ne si biir kër gi yaa ngi li ngay gis kay yaa ngi koy gis bu baax a baax mm-hmm. yëpp si biir kër gi la yaa ngi mm-hmm. yaa ngi yaa ngi gis. bëy waaw bëy bi dañ koy lañ dañuy xëcc feebar bi nekk ci moom transféré ko bëy bi jinne ji ko jàpp wala rab bi ko jàpp lañuy jël dott ko mu ñëw si biir bëy bi moom pour mu mën a nekk si jàmm dégg nga li ma ko ne su bëy bi dee ba xam di nga bàyyi jàmm. yaa ngi dégg yëpp ay xeetu liggéey yu ñuy yu ñuy yu ñuy liggéey la pour puissance sexuelle la. maa ngi gis moom la ñuy defar nii. maa ngi gis. maa ngi doon defar nii. boole ak sunguf yi ñu koy booleel yii yëpp ay liggéey yu nekk biir Gàmbi yi ñu doon liggéey la. yëpp ay liggéey la lii émission bi ma fa def biir Gàmbi la. waaw kon nag ñun nous sommes reconnus maintenant dans le monde. am xam amuñu chance intérêt fenn. waaw ku sa xel gàtt rek yaay tollu fenn wax li nga war a wax rek waaw mais ñu ngi jaajëfal ñëpp di ñëpp nag waaw di jox ñëpp seen wàccuwaay di ñaan si réew mi jàmm di ñaan si Sénégal jàmm di ñaan Sénégal indi fi Coupe d'Afrique biir Cameroun incha te gëm naan dina ko indi ci kàttanu yàlla incha allah. jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb di di sa Ndiaye la woon sëtul ak daawar bi tey moom lañ seet si woon ci Thiès waaye dafa mel ni lépp lu ngeen bëggoon xam rek Idi wax na ko moo xam ci làmb ci société ak lépp loo xamante ne ci wàllu esport la ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité am ndax dañu ñëw fekk ko muy liggéey daf ko jaral mu dagg liggéeyam ngir jël ñu loolu nag dañ ko ciy jaajëfalaat bu baax a baax a baax ndax ndakaaru sori na lool jóge ndakaar ñëw ba Thiès waaye accueillir bi rek euh, doy na lu ne ñu koy jaajëfalaat bu baax di la ñaano suñu borom guddal sa fan lool da nga ànd ak ba lépp loo bëgg rek suñu borom defal la ci lu kawe sa njort di ko jaajëfalaat bu baax a baax ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb ba jërë ngeen jëf.